salaamaaleykum seen internet euh, ñi ngi fi Géejawaay euh, zone 3 seet si équipe bu ñu naan équipe màgg daan war a préparer demi finale am ak euh, équipe bu ñu naan waali daan moo ñu gis entraîneur bi xool lan la ñuy may si match bi. salaamaaleykum coach tur bi nan la. Touba Ndiaye coach Touba. ah coach Touba yéen a ngi préparé seen demi finale contre waali daan mais coach nan ngeen di demi finale bi. waaw match yi rek ni ñoo préparé Euh, dafa nekk dafa yàgg nekk derby dafa yàgg nekk derby quoi te Maram Wally daan na mu dañuy jouer ma loolu laa njëkk a lancé appel ñu jouer sans sans violence dans xam ne demi final ñoom euh, wax nga ne da ngeen tase woon demi final. dañu euh, tase woon ngeen demi final ngeen match nul donc yéen mën nañ ne yéen xam ngeen waal daan bu baax. non waal daan xam nañu maa daan xam nañu waal daan parce que ñun yàgg nañ dajee si phase phase yu tool nii waaw parce que ay na yu bëri dañuy wax naan maa daan moom mooy bête noire waal daan mais loolu football amul loolu boobu léegi gën a rek jori gëna gën a liggéey gën bëgg li ngay def mo démé non quoi bu ko né bëgg li am ay dirigeants yu mag da nga da te yaakaar ñun suñu ASC bi amna ay dirigeants yu mag amna ay jori yu baax affaire bi ci des moy ñun paré nañ ba paré di xaar bi yalla luñu yalla jox ndol jël mais ñun victoire bool moom moy mooy mooy suñu bébé tollu lañ bëgg té inshallah dañ dañuy dem jëlé joko inshallah rabbi mais kon suma gisé boy ni ngi leen préparé ni euh, yow ban système nga bëgg indi ci match bi non xama né nga lu mëno fi jàngal kenn dara temps bi dafa xat parce que joueurs dañ dem compétir yi bu ñëw dañ ñëm comité bu ñëw comité bu ñëw yow li nga yoss si ñun boobu mooy kanam taxawaay comme taxaway fii si am si am football football Sénégal bëriwul soit da ngay jouer 4-4-2 soit nga jouer 4-3-3 parce que booy booy neetaan loolu ñu gën a apte 4-3-3 ñu loolu la ñuy préparé suñu match jëm si ak jàmm incha allah dañ génn. mais lan ngay wax waa quartier bi ak supporters yi. non supporters moom ñëpp a ngi si ginnaaw ASC bi boobu ba kenn toogul boobu ba kenn toogul supporters ñëpp a ngi si ginnaaw ASC boobu ba kenn toogul xam nga ñëpp boo dee seet euh, mobilisation bi dafa gën a bëri sax parce que neetaan moo demee noonu yow sooy gagné rek au fur et à mesure ngay dem ci compétition bi rek gars yi dañuy gën a ñëw quoi gars yi dañuy ñëw ñëw supporter si. ok kon euh, ñu bàyyi la jéem a jël benn capitaine capitaine équipe bi jéem a wax ak moom dégg ngeen coach Bamba lu mu wax bon nee na mi ngi woo quartier bi yëpp pour ñu ñëw soutenir ASC bi. Euh, donc xaar ñu xool président supporter ñu xool lan la ñuy wax. Euh, ñu ngi ni ak euh, benn supporter bu nga xam ne mi ngi bokk si comité supporter bi vice président supporter yi nekk fi mais moom mi ngi fi tur nan la. maa ngi tudd Souleymane Daaf. Souleymane Daaf. Mhm. waaw Souleymane Daaf laa tudd. mais Souleymane Daaf yéen nan ngeen di préparé seen match contre Waalidaan. waa yaa gis comme ni nga ko waxee rek ASC Magadan d'abord fi lañ dëkk ñun fi lañ juddoo fi lañ yaroo ASC bi ñu ngi ko fondé depuis boo xool depuis 81 ba léegi ñu ngi ci di waajal nag benn demi finale contre Walidane ñu ngi ci boo xoolee équipe bi ñu ngi ci préparation bu rëy supporter yaa ngi nii toog di waajal victoire bu rëy incha allahu bi ñu nag daan mais su ma déggee victoire dafa mel ni yéen pare ngeen wala yéen yéen a mën Walidane wala lan non Walidane ñoo ko mën dañoo pare bi ñu paree yàgg na ñu nag Walidane du combat ñun kay fu mu nekk nii final la ñuy wax ñun suñu vision dafa dépassé zonal ñun ay départemental régional la ñuy wax ñun dépassé nañ fii zonal Walidane équipe bu ndaw la. mais mais Walidane mënul nekk équipe bu ndaw seen kanam parce que tase woon ngeen match de poule ngeen match nul. waaw match boobu ni mu demee la woon parce que boobu dañoo nekkoon di defaraat équipe bi di soog a équipe bi mais fu nekk nii l' équipe de mur l' équipe est grande nekk nii donc ñun fu mu nekk nii match bu mel ni gagné nañ ko c'est-à-dire que mun ngeen sax féliciter davantage parce que match wala déjà gagné. Ah, kon mun neen wax ni sa waay euh, gëm neen boppam donc nag yow lan ngay wax si supporters yi ak violence bi nga xam ne gis neen ko si stade bi fan yi lan ngay wootee waa daan ak supporters wu màgg daan yi. waaw loolu dañ koy ñaawlu violence parce que sport ñu xam sport dëgg xam nañu sport le rôle de sport c'est développer la paix l'amitié et la solidarité. te boo déggee ñaari équipe yi Wali ak Magdan, ils ont quelque chose en commun Moi le Dan. à l'époque avant Magdan, Walidane Wali daan rek moo fi nekkoon kon Mag daan mu ngi ci Wali donc dafa mel ni équipe la Magdan Mag Wali vraiment ay frères lañu maanaam suñu góol ñun sax suñu titulaire Moi, abu mon Wali le la dëkk mais fii lay góolu donc match bi day Nous rek ñu dem ko ci Wali dóor ko ndànk dóor ko 2 bi à 0 ñewat ci jamm fair play dañuy ñaan parce que fair play moo fi xej parce que ci diggante ak Walidane mosu ñu am problème ñaari équipe yo xam ne ñu am problème franchement parlant donc Waldan ñu ngi leen ñaan ñom seen supporters ñu ñew ak jamm inshallah allah rabbi fii ñun dinañ mobiliser supporters yi dañ leen sensibiliser que li lañu ñuy rek affaire mënul dépasser sport que le meilleur gagne té mënul gën ci sport ndam lu muy rëy rëy du gën fi ci Pikine donc Walidaan ak Magadan yëpp nañ dem ci jàmm football ci jàmm que le meilleur gagne te incha allah rabi Magadan waa gagné incha allah rabi. jërëjëf kon ñoo ko déggandoo ñoo ko déggandoo ñun ñëpp waaw ñoo ko déggandoo sa waay fair play la woote woo euh, waa Magadan ak Walidaan ne ñoom ñoo bokk seen daan kon Magadan ak daan ñoo bokk ndey ak baay. waa ñoo ngi nii ak président Magadan euh, salaamaaleykum président. waaw maaleykum salaam président tribunal la. waaw man maa ngi tudd Bi Diallo. Euh, bi Diallo. waaw maa ngi tudd Bi Diallo. mais président nan ngeen demi final ak Waalidaan. waaw avant tout ñu ngi sant ñëpp di gërëm di leen nuyu ci disponibilité di leen wax ni ASC Magadan lu la. mag ak ndaw xale góor ak jigéen ñëpp ñu ngi pare di soutenir équipe bi comme nañ ko premier tour ba heure bi parce que demi final dafa am la fa yóbbu la fa d'abord koñ bi ñëpp déggoo doon benn fas yéene jàppale équipe bi te wax dëgg yàlla depuis match de poule ba tey gars yi ñu ngi ci woon yàlla nag kenn mënu dara yàlla moo ñu dimbali ñu nag suñu nawlee nekkoon ñun ñëpp yàlla xañ leen jox ñu dem ba demi final ñaan nañ yàlla dem demi final yàlla yóbbuñu final ñu jël bu mënul nekk lu suñu borom def ñu xam loolu la yàlla dogal mais wax dëgg yàlla kenn xamul luy xew suba mais nag dañu am jot gu rafet ñaan yàlla am nañ sañ-sañ ñaan parce que ay jullit lañ yàlla may ñu ndam ci kaw waali daal loolu la ñu bëgg mais président su ma la déggee ni ngay waxee dafa mel ni équipe bi pare na de. waaw wax dëgg yàlla moom ñun pare nañ bu yàgg parce que ay xale la ñu yor te màgg daan wax dëgg yàlla xale laa nekkoon naa supporter nekk président supporter bokk ci bureau yu bari damaa rampé ba nekk président wax dëgg yàlla muy loo xam ne nag jar sa tiitaroo ndax dëkk cib quartier gënoo fi kenn ndey gënoo fi kenn bàyyi gënoo fi kenn judd ñu tànn la xëy na dañ laa sas yow nag yaay rebe sa bopp woo ñëpp ànd ak ñoom ñu ñëw jàpp ci affaire yi te wax dëgg yàlla yi quartier bi su ma nee ma def sama xaalis ndax naa sama bopp ñëpp ñoo def seen xaalis ñii ñu def seen xaalis seen dërëm seen ñaar dërëm ñu am kurus ñu ngi ñaan wax dëgg yàlla ñu am ndox ñu ngi maye sincèrement parlant màgg daan moom lu ñëpp bokk la daal wax dëgg yàlla mbaxal la ku ngi am loo xam ne loo ci def rek pour mu neex rek da nga koy indi quoi. mais président dañu am lu ñuy seetlu si nawetaani fan yi mooy violence bi euh, violence lan nga si mën a wax si euh, ñaari équipe yi pour ñu moytu loolu. waaw di ñaawlu loolu parce que démb rek maa ngi koy wax euh, président Walla ñu ñaar ñu invité woon ci benn panel football ak lépp lu mënti am ci àdduna su boole war a war a xaajale parce que ñaanuñu ko yàlla tey jii wàll daan am naa fa ay wóolóore yoo xam ne bu ñu génnoon àdduna bala maa am jàmm dañ leen a robi wala man ñoo am jàmm dañ maa robi kon dañu war a rafetal rafetal bi mooy ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi toll nañ foo xam ne tey jii waruñu ñu a di xaajale parce que football gis nañu fi tëddante ay doom gis doomu jàmbur ak doomu jàmbur sëy ji kon wax dëgg yàlla ñun dañuy wax non à la violence màgg daan kenn x leen loolu jamono juñ toll nii la xëy jël Euh, équipe may équipe fair play ñu ñoo ko doon jël wax dëgg yàlla ñun xamuñu xuloo xamuñu xeex dañ lay gagné dañu tàcc ñu bii boo ñu sànnee xeer ñu daw boo ñu gagné bu yàlla defee safaanooye ñu muñ xam ne suñuy rakk lañ amoon nañ yéene dem mais yàlla moo dogalee loolu mais ñun xamuñu loolu wax dëgg yàlla eh, eh, président nan ngay wax si Guédiawaye info waaw Guédiawaye info moom wax dëgg yàlla xëy na jarul wax waaye jar na wax parce que Guédiawaye info mooy ay doomu Guédiawaye lañ di ay xale yoo xam ne sincèrement parlant am na ñu ñu bëgg amoon nañ mënoon nañ jafe leneen mais ñëw di génne ay gent talents yu ci biir géejawaay wax dëgg yàlla di leen sant di leen gërëm ba pare nag di lancer appel boo xam ne képp kuy autorité ci géejawaay war nga leen jàppale kattanal leen dooleel leen. di woo nag suñu magistrat monsieur Aliou Sall li muy defal mbëri mbëri wax dëgg yàlla baax na trop mais ñiy joxe info yi ci géejawaay tuddee ko seen bopp dañu war a dooleel kattanal leen géejawaay dem ca kanam. jërëjëf président. merci waaw ñoo ngi nii ak capitaine ASC Magadan euh, salaamaaleykum capitaine. waaleykum salaam. capitaine tur bi nan la. Seydou Aw la. Seydou. bu ñu la gisee daa mel ne ni yéen pare ngeen de. waaw pare nañ moom pare nañ waaw yaakaar naa ni ça fait wala un daal ñu ngi pare match bi. mais yéen nan ngeen yi préparé match bi. ñun ñu ngi koy préparé ak ñu ngi ko préparé woon rek xam nga laale woon nañ mais laale bu ñu laale woon ak manquement quoi mais instant bi alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax parce que bi lu ñu lépp daal lu ñu mën a def daal ñu ngi ko def pour gagner match bi waa parce que ñoom daal ñoo ngi dégg seen wax am na lu ñuy wax lu bëree bari mais loolu duñ ko topp quoi parce que ñun suñu gëm-gëm bopp ñu yor ak suñuy entraînement ak suñu ndigalu entraîneur quoi. waaw capitaine capitaine ñu ko déggee mooy ki nga xam ne mooy jiite équipe bi mais capitaine lan ngay wax ci supporters yi ak violence yi nga xam ne day am ci stade bi. waaw comme côté violence moom loolu rafetul quoi su sañoon daal gars yi dañuy ñëw ñu jouer si fair play supporters yi manko comme que ñu ñëpp on est ensemble parce que buñu nee benn la du Maguirane Wally comme quatre demi-finalistes yëpp laay waxee cadre boobu laay waxee quoi ñoom ñëpp ay doomu nday lañ parce que ñëpp ñuy ànd suba ngoon gu bu mais bu ñëw ba tey jii ay football di ñu boole wala diñu jox affaire yooyu noonu dafa war rafet quoi lépp dafa war rafet parce que suba la du tey affaire du tey suba la parce que suba day am ginnaaw suba am na dañuy daje fu nekk ñu ñëpp ay doomu ndey lañ def boobu noonu mais lii bu mu ko yàq quoi lii bu mu ko yàq nañ def nañ ñëw ñu gérer ko si fair play ñu ñëpp ñu dem suñu yoon quoi waaw que le meilleur ok capitaine merci beaucoup. dégg ngeen capitaine bi lu mu wax mi ngi woote si non violence donc mën nañ ne ñu fi jël euh, wax ñëpp nee nañ violence baaxul donc supporters yi muy supporter Magadan di supporter Waalidaan ñu ngi leen di woo suñu jouer match bi si jàmm ak salaam. mu bañ a am benn violence